lundi 10 mai 2021 mbokki xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen neenaa naa leen nii lay demee ci seen journal de l'arène lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaanee faram-fàccee ko baaxee leen ko dalati leen ak jàmm ci seen journal de l'arène Babacar nuy naa la. fay naa la Ami Diouf. na def maa ngi sant. maa ngi bu yama yama rek sant yàlla sañ sa de. damaa sañse. da nga waaw waa Petersen a fi jaar de. Hmm. jub seen ak Cheikh Lambaye. ah baax na. waaw waa Petersen daal tey ñoo ma xëy def nii. foo jaar dawal nga di ma fa jaarale. ah waaye di dem rek bàyyi ami di bàyyi ami dama la dul gis danga ma dul yóbbaale. dama ma yóbbaale pare nga pour ma la yóbbaale waaw. dama yóbbaale Babacar. dafa les caméra ngay wax de. pare na waaw pare na. amoon muskila ay ca New York dinaa la maa ngi nuyu ñu ngi siifu di leen ziar di leen ñaanal jàmm <laughs> ci leen di leen wax ne namoon nañ leen. leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp Mhm, am na solo waaw. Aïcha su baaxee ñu dem seetaani revue bi daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. leen lundi 10 mai 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy fës wala la ca xëy fës boog lenn la Balla gay numéro de bu sol costume bu bu la jiital simisam bu weex maanaam daal Balla Gaye 2 nag boo bëggee dégg dëgg moom jël na avion ne yomb dem réewum Paris la France maanaam ca INSEPS ga ca France yëglikaay bi ne na ñaari weer la fay def maanaam 60 jours maanaam kon Balla daal tey alterné ji ci suba lay arrivé fa nga xam ne nii moom moo de France sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu que tëgg kombaam nag di Gaston Mbengue moom soo bëggee dégg-dégg daal la mu xëy xamle wala la yëglikaay ba xëy wax nu ko ci Gaston daal na li am des daal Gaston fi nekk nii ginnaaw ko nga xam ne mooy giri Balla Gaye numéro 2 Boy Niang 2 Balla yooyu nga xam ne fësal na ko Gaston Mbengue daal mode fast track la taxaw fi mu nekk nii lenn lu mu fi nar a bàyyi amul maanaam mu ngay dox yeneen i combat ngir fas yéene na ci Ama Baldé ak Gris Bordeaux mu nga ca de ak yeneen sax yu nëbbu la yoo xam ne fi mu nekk nii Gaston daal mu nga ca di ko lijjanti kon gas daal la mu nar mooy te lamb ji ci loxoom yëglikaay bi di sunu lamb nag moo xëy ñëw tey dina wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag lamb jooju mu bëgg a téye ci loxoom daa mel ni ay wax am na ci diggante booy Niang ak ka nga xam ne nii moo ko tëgg di Pape Thialis Faye yëglikaay bi xëy na ñu xam ne daal ginnaaw ba Thialis génnee wax kii di Boy Niang daal démb gis nañ ko ca kër ga nga xam ne ni moom moo doon promoteur ba moom di Pape Thialis Faye waaye la ca am ba des daal yëglikaay bi xam na ne daal dégool ma nga xam ne moom mooy wayjuru booy ñang bu góor daal moom noppi la ca boole de moom waxu ca defu ca mu nga toog daal jàpp njaamuram keneen koo xam ne ni moom bu jàpp nag njaamuram ci làmb ji ba bàyyi na ko fi mu nekk nii ñëwaat la bëgg takk ngemb moom zos retouram daal fi mu nekk nii loolu la ñuy wax mel ni ki nag digganteem ak nees moom mooy wax ja mel ni daal moom bëgg na loola de zos daal maanaam xëy na ci yëglikaay bi di làmb ñu dalal ko fa mu ngar daaju fa wax fa lu baree baree bare yemu ca am na loo xam ne nee na dootu ko fàtte wala boog dootu ko fàtte bu mukk nee na bés ba ko Gaston Mbengue waree jox ñaar fukki million jox ko ko nee na bés booba moom sos nee na mënatuma koo fàtte am na leneen loo xam ne tamit wax na ko ñaari mbër yoo xam ne nee na tey su ma nekkee dara ci làmb ñoom ñaar la nee na baabooy la ak Eumeu seen nee na ñaari doom Pikine yi daal ci làmb ñoo ma def man la ma doon yëglikaay ba yemut ak moom de ñëw na tamit ci Modou Lo roi des arènes Modou Lo mu nekk roi des sos na na loolu fierté la ci moom mbégte la ci moom te itam nag fierté waa parcelle yëpp yëpp la maanaam daal jàpp na ne gis Modou mu nekk roi des arènes moom fierté mënu koo gën a rëy ci moom moom sos moo xëy di wax lu mel ni ki noonu beneen doomi parcelle boo xam ne xëy na di wax mooy Franc moom que mu xëy di dànkaafu moo di Tyson 2 Franc daal daal nee na ko Franc daal nee na Tyson 2 combat bi moom soo bëggee dégg-dëgg jàppal li ma lay wax sama xol laa ko téye maanaam fi ma ko teg sori na de dama koo wekk ba yegg ci lool loolu moom dee ci bàyyi xel saa su ne yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu moom sunu làmb ba tey yëglikaay bi sunu làmb bu nu ca continuer maanaam leneen loo xam ne nii moom ay wax la woon fan yii te daa mel ni ki nag maanaam daal yëglikaay bi xamal nañu ne daal soo bëggee dëgg-dëgg cooli dox ci diggante kee ak ka nga xam ne moo di jax ci xëccoo datu la sées ca Fatick drapeau Matar ba yëglikaay bi dana tey nag la ministre ba di tranché daal jox ci ñoom ñaar ki am dëgg dëgg gi waaye dëgg googa daal loo ci mën di dégg balaa Matar ba di wax moom daa mel ni sàmbare jonn ma nekk ca Fatick te nga xam ne seebay joxal làmb ja moo ko jiite mook directeur stade ba moom la ñu wax ci Equivox TV mooy date booba jamay jamaïcain moo ko moom loola mu nga ca Equivox TV waaye damay retourné dellu siwaat sunu làmb rëg-rëg moom romb na Fatick dem ba fa nga xam ne ni moo doon ca Kaolack jëm ca Gàmbi yëgle kaay ne na ba mu fa yeggee daal li am ba daal ay Jakarta ñoo ko escorté ay soppeem dar ko maanaam daal fu rëg aw gaayee klaxonné di pipan rëg di génne xaalis di leen may yëgle kaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëgle kaay bi ñëw na ci mooy pakala moom itam day Gaston Mbengue nga ko joxum komba mel ne ki nag digganteem ak Gris 2 yëglikaay bi ne daal ñëw na ca de xamal ñu ne daal paka la fi mu nekk ni duggati na face de maanaam daal fas fa yéenee bëre ji ak ka nga xam ne moo de forçat de ka ko joxam combat nag di Gaston Mbengue xëy na tey ci record ngar daaju fa di wax Gaston nag ka muy waxal moom mooy Pape Thialis fay Gaston ne na ko day yow Pape Thialis déggal lii ma lay wax yow daal bu fekkente ne gars yi dañuy jaar ci porte mag bi génn wala ñëw maanaam ba pat lamp ba nekki yow moom ci fenêtre nga jaar wala sax ci porox ndol kon nag xamal bu baax ne man duma sa morom te itam nag sama élégance ak am ko ñàkk ko du yaa koy wax man promoteur la buy tëggi la fekk mbër mu bëgg combat ma dox ko jox ko combat muy Boy Niang leneen loo ma waxal dang may tooñ tey sax nag dama dut sa morom moom gason daal loolu la wax ci record wax ko fa nga xam ne nii moom moo di ca Lutte TV nee na nanguwuma combat jàmbur tey suba waxi noppi mbër laa fekk mu bëgg komba muy Boy Niang ma dox ko jox ko combat yemu ca de ca lit TV Gaston nee na li am ba des kii di Tapha bu bëggee dama koy jox avance te pare naa ngir tëgg ko loolu mu nga ca lit TV ak bu nu continuer ci record mu ngi xamal ne Malick Thiamboun Thiandoum bokk moom Malick ku ko doon seetaan ca ITV boo yeeboo nga sanseb ligne wala ondo ndax càndum léegi mu nga TFM ga nga xam ne Youssou Ndour moo ko moom maanaam daal càndum moom merkatoom déclenché na ko ba dem na TFM yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu ko mel ni ki loolu daal mooy li nga xam ne ni mu nga ca biir record mel ni kon daal loo ci mën a dégg xaw ma merkatu daa ubbi wala ubbeegul waaye Malick càndum moom loo ci mën a dégg déclenché na ko jóge Boubacar Diallo dellu na ca TFM gu Youssou Ndour mel ni kon daal gars yi boo bëggee dégg dëgg abib maanaam daal fi mu nekk nii eska du ku ci nekk da ngay xool fasab ceeb di tooye ndax it nag boroom kër ceeb bu neen da koy gënal surtout man nee joxe des pass da koy laaj na mu ko neex mu nekkoon revue des titres ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb Babacar xëtam bu njëkk kañ fa gis rek moo di Balla Gaye 2 comme ni nga ko waxee ci revue bi moom euh, ma nga jëm fële ca INSEPT euh, le lion est arrivé ce lundi en France maanaam yegg na France tey ci altine bi. waaw loolu la suñu làmb xëy xamal ñu ci mhm. ay xibaar. Mhm. waaw muy loo xam ne defe naa itam amoon nañu information que ni moom ah démb ci dimanche ji la fiy quitté pour dem. Mhm. réewum Paris la France pour INSEPS pour mhm. préparer ji. Mhm. foofu wax ne su fa delloo. dama am na ci droit parce que li tax ma ne am na ci droit mooy olof ne na foo wekk foo foo foo xasee. am fa jeexaat foo fa rab doom doole fa sa loxo. parce dafa demoon. dëgg muy bëreek Modou Lo préparé fa bi mu ñuy wax dëgg yàlla ñu gis ne indi na forme bu leer a leer a forme bu doy waar. macha allah yàlla may ko ci ndam. tey bu jëlaatee combat ak bombardier ñu war a bëri le 31 juillet. ak yeneen combat yi mu signé ya ca ginnaaw Boy Niang bal ak Gris Bordeaux. defe naa itam bu solaatee dàllam dem fa pour 60 jours. pour préparer juwaat defe naa la itam xel war na cee mën a xel war na ko nangu. ah loolu nag mooy sport ah sport moom chaque jour chaque rek boo bëggee di def performance di gën a nekk di kaw di gën di avancer ah defe da ngay yokk say entraînement. parce yi ci des yëpp xëy na mën na nekk ñaan gi dana ñaanlu parce que nit ku ne di nga ñaanlu mhm. da nga def yeneen ak yeneen ak yeneen waaye nag base bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy entraînement mhm. te defe naa itam moom conscient na ci mook estafam mhm. ba mu jaral ko muy dem INSEPS di fay di fa nekk ay mois di entraîner ngir bu ñëwee am forme a ah, loolu moo lay wane kon combat bii mu jëm ak Bombardier xaw ma ku ko fonk waaye Balla fonk na ko. Mhm. waaw am na solo. Mhm. bu jógee foofu nag ki nga xam ne moo di suñu tonton Gaston Gaston Mbengue moom moom mi ngi am mode fast track euh, ginnaaw ba mu tëggee Gris ak Balla Boy Niang 2 ak. Euh, Balla encore moom bëgg na encore combat ki nga xam ne moo di Ama Balde ak Gris moom daal fast track bi daal la jël. waaw loo ci mën a dégg daal euh, man dama koy jërëjëfal moom Gaston production. Mhm. Gaston Mbengue parce que lu tax mooy gis nga ami. dëgg yàlla rek moo ko moom ah. dëgg yàlla. Ah, bi mu ñëwaatee si lamb lamb amaat na beneen dund bu muy dund. wax dëgg yàlla parce que nit itam da ngay wax dëgg rek te yàlla tax. Mhm. parce que promoteur la ba nga xam ne ñun bi ñu bi ñu koy gis muy nekk si lamb gis nañ ni mu doon défendre lamb. di mhm. taxawu lamb ci ko côté yépp ku laal lamb mu laal la. yaa ngi dégg jamono yi mu toog te mu tëggul làmba ngi doon dox promoteur yi yaa ngi doon tëgg mais am na tamit lu manqué woon ndax euh, gis nga euh, fukki bëñ ak ñaari ñaari nekk sa gémmiñ mhm. bu ci benn manqué di nga ko yëg mhm. kon manquement boobu mu amoon wala vide boobu mu fi bàyyi woon bi mu ñëwaatee duggaat

ndax tontu la wala lan. waaw xam naa dafa dem comme Thialis génn na. Mhm. ñaawlu acte bi am. ak yu mel ni kii noonu ba am na mu waxee xëy na booy ñaay itam te am na euh, moom mook Thialis lu ñu seq ci wàllum làmba. Mhm. ba mu tëggal ko combat. Mhm. yaa ngi dégg parce que ki la tëggal combat am na lu ngeen seq ça veut dire mooy sa promoteur. defe naa bu génne waxe noonu booy ñang xëy na xëy na loolu moo tax mu dem këram pour waxtaan ak moom. parce que olof ne na réeroo amul ñàkk a waxtaan am. te xëy na bu waxtaanee. danañ mën a déggoo waaw ok mu tuddee mhm. Gaulle mhm. bu ñu jógee foofu ñu daal di jàll rek. De Gaulle silencieux boo ko déggee mooy maanaam mooy papa yi De Gaulle mooy papa yi Boy Niang moom mhm. maanaam wax ji quoi moom dafa noppi. ah De Gaulle mooy papa yi. Boy Niang waaw De Gaulle. De Gaulle waaw xanaa surnom la. waaw de waaw De Gaulle waaw la waaw. <laughs> kon làmb la waaw. d'accord waaw. ok bu ñu jógee foofu rek ñu daal di jàll ki nga xam ne moo di Zos moom nee na euh, ci retouram daal mi ngi wax li tax mi bëgg ki nga xam ne moo di Nees. waaw moo Nees day bu dee de retourné na ñëwaat ci làmb war nañoo mën a bëre. Mhm. sos nag daf fi xëyoon toog benn jour ne bàyyi na làmb. Mhm. def ay conférence de presse am ne na ma da wax day lay waxam. est-ce que du business bee neexoon rek. waaw non xam nga lenn rek laa koy laa am lu may wax si côté mm. maanaam gis nga nit. Mhm. ñun ay sénégalais lañu ay africains lañu. il faut que ñu fier ñu fier d'être africain. fier d'être sénégalais suñu culture ñu téye ko. jos tey bu ko sénégalais yi xamee làmba tax ñu xam ko. muy man ak yow ak keneen ak keneen mu nekk mbër mu mën a bëre am xorom. yaa ngi dégg làmb teral ko. est-ce yaa ngi dégg lu ma lay wax defe naa Zos fi mu bàyyee làmb amoon am na na droit bàyyi ah am na si droit parce que loolu moom la mais fi mu ko bàyyee woon pour man amul pour man waru fi bàyyee làmb parce que du du nekkul woon du mag. mu ngi woon ci yoon bu yoon wi di bëri di gagné vie mhm. mais nag xëy na amoon na lu taxoon mu ne bàyyi na. Mhm. bu demaatee bay réfléchir ba xalaat ne ah defe naa dañ ciy kontaan mhm. waaye digganteem ak nees itam ah bu ko promoteur bëggee war na mën a nekk moom wax na li tax mu bëgg nees moom nees itam gëj na bëree waaye xam naa daal ku ciy jël ay décision dee ko càmbar mhm. dee ko càmbar ami fi ngay mhm. ba nee na wax baaxul gaaw wax baaxul looy wax na nga ko xool dëgg la de parce que ëllëg a tax dëgg la ki nga xam ne moo di Franc nag moom ngay dànkaafu Tyson 2 nee na ko combat bi ça me à cœur maanaam da ko téye te da koo da ko soxal daal combat bi Tyson na def nag. waaw bu ko Franc waxee dis na ko mën a gëm ndax li tax mhm. mooy. lit simple wala boog lit avec frappe bi mu ci duggee ba tey amagu ci defet mhm. te itam xale la boo xam ne ñi xam làmb tey wax ci làmb amagu ci defet Franc ah gisuma ko man euh, bu fekkente ne tey ñi wax ci làmb la te am connaissance su làmb mhm. xamal nañ gis nañ ci Franc koo xam ne siru champion koo xam ne ëllëg war na mën a bokk ci ñi tee làmb parce que li tax ñu wax ko mooy ñi koy wax nag jeté wuñ koy fleur mais dañu gis ne que il est sérieux lu muy def mhm. respecté na lu muy def moom Franc et mën na bëre te itam am na euh, maanaam li ñu soxla ci doomu aadama mooy humilité mhm. <laughs> maanaam nekkul nit ku rëy parce que euh, tey gis nañ Franc balaa saison bee tëj nii ci koor gi balaa moo taxaw mhm. ñaata yoon la wàcc arène la wàcc ci mbapat mi ah quatre fois non quatre fois ñàkk benn la ci demul final mais trois yi def yëpp da koo jël am gagné ci ay millions terewul mu ngi ci lit avec frappe mhm. kon defe naan bu ne ci xolam la téye combat bi dëgg la waaye tamit yaakaar naa li ko téye mhm. moo téye Tyson 2 mhm. Tyson 2 ku ko xam-xam ne doomu lébu la te lébu ku ne xam na ko si jom ak fulla ak fayda mhm. kon moom itam defe naa Franc lu mu tiitee combat bi ci xolam mhm. defe naa li ko dal nii moo li leen mooy dal Tyson bi mhm. moo tax combat bi du yomb bi benn non la kenn bëggu cee daanu <laughs> dëgg la ku ci daanu bés boobu da ngaa ñàkk am na solo euh, gàlla bu jax ak ki nga xam ne moo di jamaïcain mu mel ni rek euh, Matar ba dina ci jël euh, ci lundi bi ndogal waaw da ciy am solo ndogal bi nag dama naan sax wàcc na ba pare pour mën a parce que li tax ma ne wàcc na mooy man ku seetaan te eh, Equivox te nga gis Jamaïcain mhm. wala nga gis boog Sambare John mhm. yaa ngi dégg parce que man demoon naa Fatick mhm. ci samedi ji pour gëstu ci loolu bi ma demee président CRC bi xamal na ma ne ah Jamaïcain moom moom date boobu moom lañ ko jox waaye stade ba tamit directeur ba loolu la wax kon defe naa foofu moom Matar ba xëy na bu trancé ah la muy trancé mooy mhm. euh, leeral mbir ya ci ñoom ñaar waaye dama ciy wax rek encore une fois muy Jax muy Jamaïcain ñoom ñëpp c'est des sénégalais mhm. lamb la ñuy défendre mhm. pour man intérêt lamb leen war a soxal bu leen doon soxalee nag bu maanaam entente amee ci date ci ñoom ñaar waruta sax sori war nañ ko mënoon sax pour man war nañ ko régler entre ñoom ñaar sans sax kenn di ci jot loolu moo gënoon pour man mais bon xëy na nag décision dina ci am ñu xam kan moom moom la sées mhm. euh, mais fi mu nekk nii moom dama yaakaar ne mm. date boobu mm. xalaat naa ne jamaykee moo ciy tëgg mm. parce que loolu moom mooy li am nga xam ne moom mooy ca Fatick loolu lañ jàpp ñu yore lamb d'accord mhm. na ba tey rek euh, bu ñu jógee foofu nag ki nga xam ne moo di rëg-rëg doon dem Gàmbi ci arjuma bi waaye mhm. ba mu yeggee ca kaw Kaolack ndangaan ay Jakarta mel ne ñoo ko daal di scorté fii bon <laughs> muy distribuer ay billets de waaw waaw loolu day baax rëg-rëg ñi ko bëgg ci làmb daa bëri parce nag mbër la boo xam ne mbër mu bëgg mu fonk lu muy def la mhm. li ma la sànq si franc looloo dal Tyson 2 mhm. dafa fonk làmb mhm. moom rëg-rëg defe naa ne fonk làmb moo tax tey mën a dugg Kaolack waa Kaolack topp ko surtout jakartamen yi muy distribuer ay billets de banque am jëm Gambie loolu moo lay wan ne rek mbir mu mu doon rek boo ca nekkee wane ca fulla ak fayda waaye ngir yàlla bu ci yëg succès rek dëgg bu ca yëg si mhm. ndax saa boo yëgee succès rek yaa ngi wàcc ndax dama daan dégg Mohamed Ndao Tyson mhm. maa ngi koy nuyu di ko ziar sama waajooju nee na booy gañee mhm. na nga gañee avec humilité moo booy ñàkkee na nga perte ci dignité Tyson te waxam jooj dama ko yàgg dégg mu di ko wax loolu dafa am solo kon loolu rek lay wax ci côté di ko commencé ci sama bopp man mii di wax ci micro bi ndax nit yomb naa wax ci micro ñu seetaan ko seetaanaat ko ami mu naaw falaam dëgg la yooyu du ko jar nañ wàcc rek waaw am na solo. Mhm. ngir dal da ngay woyof. bam na boo ko deful bu sot waaye eh, yaay waaj rek nga téye rek. balaa nga koy xam néeg di lakk jaay jomba ñaaw lakk amee ah, baax na. lu mhm. la. dëgg la te yàlla daa loo xam ne moo ko jago. am na solo nii ci kaw. Mhm. kun fa yàggoon rek ko moom. dëgg la. Eh, suñu làmb jeexal nañ foofu daa mel. waaw waaw bët yi day lëndam. naa yow <laughs> a wax rek waaye la la dal ki. <laughs> ok waxuma la bët yu lëndam waaye rek lu ma daloon dara dalul ah tous jàmm donga la daloon baax na dara jot du ma ci tontu euh, bu ma jógee foofu nag ñun daal di dem euh, seeti record lañ fa fekk nag moo di suñu papa Gaston Mbengue ba tey moom indi tontu ci ki nga xam ne moo di euh, Pape Thialis fay nee na ko du géewoo ci bunt bu mag bi bi ngay ñëw ci làmb ci ci bunt bu ndaw bi la jaar kon la ko bëgg a wax ah mu ngi noon de waa gis naa ko mu wax loolu ci record gis naa ko ci Lutte TV tamit mu wax Thialis tamit déglu naa ko mu wax mhm. ba tudd affaire élégance Gaston tamit xamal na ko ne du ma morom bu muy tudd sama élégance bi yooyu duggewut ci port maanaam mbappatul suñ leen duggee ci porte bu ndaw ci porte bu mag bi ça veut dire que mbappatoo xam nga làmb li ñuy wax mbappat promoteur day mbappat làmb reporter day mbappat làmb bindkat bi day mbappat làmb làmb mbappat ko maanaam mbir mu mën a doon ci àddina des koy mhm, mbappat sax waaw maanaam da nga cay loo doonul doo doon eh, loo nekkul taalibeem doo doon <laughs> sëriñam exactement noonu la demee waaye terewul nag mën nga tamit màgg mhm. mu neex la nga ñëw mu jaral la nga dugg ci. Mhm. yaa ngi ba def ci ay effort. ba mhm. réussir ci. Mhm. loolu man na ne mais man li may wax si ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ñëpp wax dëgg yàlla dama naan seen diggante pour man lu rafet fa am. parce que Gaston Mbengue comme li ma lay wax rek man dama koy wax di ko na mën nañ ko jàppe leneen mais ma koy wax. di nga ko gis nii des fois. mu wax ak dënnam nga ne Gaston. non bu ma jàppee wala nangam sangam mais après au fi au au finish doo gis loolu ci moom sax veut dire nga gis nit koo xam ne day waxtaan kaf foore mm-hmm. du jàpp dara mm-hmm. mais su la waree yuuxu nii ami dalay yuuxu mm-hmm. loolu loolu moom gis naa ko ci moom bu la wax dalay wax mais du koo xam ne kuy jàppal ay affaire la li caalis tamit caalis tamit liggéey nañu nit ku yaru la boo gisee des fois sax xëy na yenn yi mën ko arrivé wala nangam dafa yaru de trop Pape Thialis Faye loolu moom lu ma mën a seeral ci moom reewul wax dëgg yàlla kon defe naa ñaari ñooñu ak lu mën a xew nañu waxtaan rek Thialis dama naan Gaston mat na ko papa wala boo ko ko matul tamit mag na ko lool ku mel noonu nag di sa kilifa defe naa ne jarut ñoom ñaar ñuy waxante wala ñuy kiyante na ñu waxtaan mhm. jalis pour man tey moo ko doon digal man di ko conseil man Babacar dama ko naan solol sa dàll nga dem ca Gaston waxtaan ak moom mhm. parce que xam nga lu tax loolu du problème war nañu mën a waxtaan jàppalante Gaston dolli ko xel ndax moo ko jiitu ñu néeg bu lëndëm bi mu tëgg booy ñaar tafaatin mu réussir ko buñ ci paree calis jël booy ñaar tëgg ko ak Balla Gaye muy réussir ko Sénégal jëm kanam loolu moo gën a rafet parce que ñoom ñëpp ay sénégalais te defe naa ne ñoo ma gën a xam lu baax ñoom ma gën a xam lu rafet ndax ku am nga loo def ci sa réew yaa ngi dégg mhm. man côté boobu loolu laa ciy wax mhm. ñoom ñaan ñëpp wax dëgg yàlla ay nit yu baax lañ mhm. ndax ku ci ne am na lu ma mën a wax ci yow ndax ku ci ne xam naa ak yow xam naa la am na solo waaw ndax Gaston mi dafa am benn jour ci benn daje mu ma ñëw bi ma ñëwee rek xam nga ko mu ne ma non Babacar wax mu dëgër yaa ngi dégg. Mhm. ñi ma àndaloon sax ñu naan ma noo paa bi di ma leen déet noppi leen yéen bàyyi leen ma rek ak paa bi. <laughs> Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. balaa mat deux minutes ñëwaat na ne ma noo yow sama fiis nga nangam sangam. noonu la xoolal loolu. lool ku baaxul mënoo ko. dëgg la Thialis tamit li ma la wax si moom moo si nekk rek. nit ku baax la. kon nañ waxtaan rek. dëgg la moo gën. Euh, mercato am na. Hmm. ki nga xam ne moo di Malick Thiandoum nekkoon ca ITV. <laughs> mu nga TFM sama grand frère. dem na ah sama waaw macha allah loolu defe naa dañ ko ci jàll mu réussir ko tamit ah. parce que mhm. euh, defe naa ne ku deful dara. Mhm. kenn du la soxla ba di la yóbbu fenn. dëgg RTS la njëkkee def fa ay at yu baree baree baree baree mhm. bokk na ci ci côté reportage su làmb. ñi ko innové Malick Thiandoum da cee bokk ci côté professionnalisme. surtout côté français bi. Thiandoum lay mooy toog ne la dimanche. 22 avril. Ami Diouf xulle ñëw ca palmarès ya ba ne la l'histoire retiendra <laughs> ah wax la laa geleen Aline xaw man yooyu yooyu yeneen affaire la xam nga affaire dafa am ay tuus loolu ñu fi càndum la mhm. muy koo xam ne vraiment tamit ah nekkoon na ITV xëy na xëy na dem na ba gis ne war na fa jóge jóge na mhm. fa mais na lépp am ci jàmm rek mhm. def naa ci noonu lay demee ndax moom itam grand bu yaru la bu joxe cër la ñun de wax dëgg yàlla fu mu ñu fekk jox ñu cër mhm. te itam euh, gis nañ ne que daal fee mu dem tamit kër la goo xam ne itam tey ci presse Sénégal royukaay la TFM parce que ñu ngi liggéey lu am solo ma ci nuyu ku mel ni sama soppe yi nekk foofu sama mhm. grand Lamine Samba mhm. Mao Cissé ak ñëpp ñi fa ne ñoom Modou Diouf ñu mhm. ñëpp maa leen di Malal Junior ak na fa dal ak jàmm def fa lu kawe njortu ñoo ko fa yóbbu parce que Youssou Ndour tamit képp ku ñëw ci kër mu war faa liggéey war ngaa xam ne ci kër jàmbaar nga ñëw ndax Youssou dafa dafa départ ci dara ba nekk tey quelqu'un ci àddina bi kon ku mu ñëw ci këram rek war ngaa xam ne liggéey la war am na solo waaw da jaar Fandar Keppe ñaan jàmm Sénégal di ko ñaanal ñëpp di balu ñëpp aax di nuyu képp ku ñuy suivre waaye di wax mention spéciale suma xarit bi sama ñaari xarit yi mm. sama maire yi mm. maire la Mbengue docteur Macoumba Diouf mm. ak maître Pape Sène ñi moom ku may mere ci ñoom bu yeboo naa da nga mer parce que tax mooy dañ maa def nu ma kenn deful ma def leen nu ma deful kenn kilifa lañ bu leen neexoon loolu du defaluma leen lu tax ñu defal ñu jàppe ma noonu muy docteur Macoumba Diouf ak maître Pape Sène mm-hmm. kon maa ngi leen di jëjëfal saa su ne mm-hmm. li benn li des tamit gis naa ci ñoom jikko ju baax. nit ñu fidèle lañu nit ñu fonk liggéey lañu te loolu am na solo trop. di ñaan jàmm Sénégal. Mhm. waa Petersen. Mhm. mention spéciale. Mhm. ci tey niñ ma def rawatin jib seen ak Cheikh Lambaye. mais mbay guy gi tam maa ngi koy jéggulu ci ndogom yi kera dama demoon Fatick mbay. moo tax ñëwuma maa ngi lay balu àq bu baax a baax a baax mais man làmb lu ñu ca woote rek man baaba Babacar su ma ci ñëwul gënaluma. mais nag dinañ ko baataat tax defe naa maay ki la njëkk jël ci ndogu. Mhm. kon defe naa ne moom yow on rek yàlla baax na. am na solo voilà. di la jaajëfal bu baax di jaajëfal yi nga xam ne ñoo nekkoon ci technique bi leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf.